ñu ngi nekkoon ci téere bu barkeel bi ñuy tudde kantaratul murid le pont du savoir pour les chercheurs et les étudiants nga xam ne sëriñ bi moo ko jàngale ci xam-xam euh, ak euh, nan nga koy amee ak njariñ la euh, muy cercle du savoir sëriñ bi وقد أتى من مات في التعلم ما بينه وبين الأنبياء علمي إلا النبوة وذو الإخلاص هو الذي بذاك ذو اختصاص لكونه لكونه وسيلة للتقوى لكونه وسيلة للتقوى يحوي الذي يحويه خير الجدوى wa cilmu maa fi bacdi laxyaani yaqac fardu kifaayatin cala alladi yasac walbacdu in yaqum bihi fi lbalada fi lbaldati yasqut can ilbaaqiina duuna almiryati in lam yakun biha alladi yaquumu ishtarakuu fi lismi fastaqiimu wa nazalu alwaaqica kulla xiini manzilata altacaami fi tabyiini wa waaqian fi lbaadi kaddawaa'i ilman ilman nujuumi ilmi nujuumi mathalu biddaa'i taallumu ilmi nujuumi taallumu ilmi ilma nujuumi qul xaraam wa fi ihtimaami ilmiha fawtu lmaraam inna alhuruba min qadaa'i illahi laysa bimumkinin ajal wallahi illa alladi yucrafu minhu alqibla maca alsalaati cilmuhu fi lxilla wa yanbagi tilaawatu alqur'ani waddikru waddikri wa yanbagi tilaawatu alqur'ani waddikru wadducaau fi laxyaani tadarrucan wa xiifatan idhaara lilfaqri walfaaqati wankisaara والصدقات الدافعات للبلاء مخلصها لوجه واهب الإله wa hakada su'aalu rabbi alcaafiya walcafwa fi daarayni xayra alwaafiya man ruziqa adducaau laysa yuxramu illa ijaabatan wa thaabiruhu tukramu sëriñ bi dafa wax ci faslu ñaareel bi ne waqad ataa ñëw na ci xadis ak asar ne man maata képp ku dee fi taallumi ci daara ja maanaam nit koo xam dafa demoon daara ja xëy na malnutrition ak jafe-jafe daara ja ak manque bourse ak jafe-jafe loo dundee tax nga dem ba feebar fa songong ba faatu te képp ku dem daara xam nga ne loolu mën naa nekk man rek euh, sama magu papa bi topp ci sama papa bi ma jur moom looloo ko daloon dem daara ja euh, condition yamu doon dunde tax fa la jaare faatu moom ñu tuddee ko woon yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi nga gis ne kon daara metti woon na te ba tey mu ngi metti donte conditions yi ñu ngi koy améliorer léegi nag képp ku dem ca daara ja condition yu metti tax yow yaa ngi bëgg jàng sa diine yaa ngi bëgg jàng xam-xam boo jariñee sa réew euh, dañ lay jàppe martir wala ndax sacrifice nga def moo tax mu ne man maata képp ku faatu fi taallumi ci dem ci daara ja doon jàng ji maa baynahu nekkul sa diggante wa bayna anbiya ak diggante yonent yi ilamin xamal loolu illa nubuwatu lulu nubuwa yow doo yonent certes waaye nag yàq yonent yi yéen a bokk mission benn martaba rek moo dox muy nubuwa muy martaba shahid ngay amee ñu ne waaw ndax ñi jàngi ji ñëpp dee ñooy am loolu mu ne déedéet wazul ixlaas yi képp koo xam ne dafa am ixlaas ci njàng bi mooy ñu laaj la le pourquoi lu tax ngay jàng ji lu tax ngay dem université lu tax ngay dem jàngi ji bitim réew lu tax nga bëgg am xam-xam nga ne dama bëgg a jaamu xam ci lu ma jaamoo yàlla am ci liggéey bu ma sàmmee sama ngor ak sama diine taxawu ci diine ji financé ci diine ji euh, tabaarakallahu dundal diine dundal les sciences islamiques euh, taxawu ci nit ñi et cetera muy euh, et cetera yooyu ki am boobu pas-pas bu sell moom mooy am loolu bu fa faatoo dañ koy bindal yoolu ku am loolu mu bëggoon waaye nag bu fekkee da nga bëgg a jàng pour bës pour ñu xam la pour nga siiw kooku boo ca deewee nag perte nga ñaari yoon ndax jotoo am la nga bëggoon te amoon yàlla itam moo tax mu ne wazul wazul ixlaas yi boroom sellal gi huwa alladi bi daaka zu ixtisaas yi moom mooy kiy jagoo loolu ndax innamal amalu bi niyaat yi moom yéene yu sell yi mu amoon bu ko dee dabee ba defu ko yàlla moo koy wuutu fayal ko ko ñu ne lu tax loolu boobu faveur lan ko xam-xam amee mu ne li kaw nii yi ngir nekk gu xam-xam nekk wasilatan di jokkuwaay euh, li taqwa ci ragal yàlla xam nga xam-xam ak ragal yàlla du benn nit mën naa am xam-xam te du ragal yàlla waaye nag ñu ngi séenoo ragal yàlla ci am xam-xam loolu tax nga dégg ko naan waaw si jàng nañ waaye dañuy def lu leen neex si bu dee ñoom ñoo jàng tey mën a def lu leen yow mi jàngul moom kon ci loo xam nga yow yaa gën a yéeme kon ndax ki jàng ba xam li mu waroon a def bu dee moo ko mën a ñàkk def yow mi jotul jàng sax ba xam yow loo war a def moom yow kon defoo dara moo tax regal yàlla ñu ngi ko séenoo ci ñi jàng donte nag euh, bokkul bokkuñu waaye effectivement bu dul exception ñi jàng ñooy ragal yàlla ndax innama yaxsha allah min ibadihi al ulama léegi yow mi nga xam ne nag da ngay jàng moyen boo amee ragal yàlla kon même boo jotul yegg ci ragal yàlla mën nañ la bindal loolu te moom la imam malik waxoon ne jàng ci boppam rek jëf la ndax yaxwi alladi yaxwihi lépp loo xam ne ni maanaam làq na ko moom ragal yàlla encercler na ko xam-xam xayral jadwa ngën ji njariñ maanaam bu fekkoon xam-xam benn benn lu mel ni ceeb la wala dugub siwo biñ koy denc wala pan biñ koy def wala saako bi mooy xam-xam kon demal nga jàngi ji nga am xam-xam parce que loo gën a am xam-xam gën koo ragale yàlla yàlla noo ko gën a xamee gën ko ne ragale mais nag bu mu tax nga foog ne xam-xam yépp tolloo degré déedéet xam-xam dafa am lu ñuy wax xam-xam euh, fard ak boo xam ne kifaaya la te yooyu yëpp fard la waaye fardu ayni ak fardu kifaaya wa ilmu ma fi baadi laxyaani yaqa sidi xaj malik nee na léeg-léeg yenn xam-xam yi jàng ko léeg-léeg dina nekk ci dimension fardun farata farata ban mu ne kifaayatin farata doy ala alladi ya sax ci ku mu yaatu rek ci yow maanaam am na am na njàng yoo xam ne dëgg la farata la sax ndax talabul ilmi farida la waxoon waaye am na ci yoo xam ne kifaaya la mooy bu ko ñii defee rek war na wàcc na ñi ci des lu mel ni médecine xam nga dëkk bu amul médecine dañuy am bàkkaar parce que jàng médecine jaadu na ndax ki feebar soxla ku ko faj jullit bu feebaree ma mënul jug lalam mënul jàkka ja jàkka du dundati daara ja du dundati kon nit ñi dañ war a am wér waaye est-ce que tax na waa réew mi yëpp ne dañuy jàngi ji médecine hmm? mënul nekk bu boobaa leneen du dox kon bu ñu amee département médecine rek ñooñu jàng loolu maîtriser ko euh, wàcce na ñi ci des moo tax sëriñ bi ne euh, wal baax du yeneen yi in yaqum bihi fil baldati ndem taxawe na ko ci dëkk bi rek euh, ñennat yasqut dafay wàcce anil baaqina ci ñi ci des duunal miryati ci lu dul benn sikki sàkk mu ngi mel ni ay sang néew ndax dëkk bi yëpp mënuñoo doon ay sangkatu néew waaye koñ bi bu amee ñu mën a sang néew rek doy na ci rek tabaarakallaa ku am sa néew ñooñ buñ la ci wutoo mu doy donte nit ku nekk nag ay bokkam lañu bëgg mu ñu sang ko in lam yakun biha alladi yaqumu ishtaraku fi l ithmi fastaqimu fardu kifaaya nag mooy farata boo xam ne trois personnes rek buñ ko defee ci dëkk bi wàcc na xëy na ñi ci des ñëpp waaye nag bu ñëpp marché bañ koo def bu ñëpp marché bañ koo def dëkk bi yëpp ay am bàkkaar ñu séddale leen ko raddu salaam ci la bokk muy fay nuyu léeg nga dem benn nit bu rombee mbooloo ne assalaamu aleykum benn nit ci mbooloo ma buñ ko bu ko fayee rek yóbbaale na ñi ci des ndax moom mbooloo lu fay nuyu nuyu mbooloo ma c'est pas euh, du farata ñëpp euh, maanaam fay la mooy bu la kenn fayee rek yóbbu nañu bari bari na kuy xultu dara waaw diw maa ngi ko defal lii te defaluma lii te xamoo ne loolu ngay xultu fardu kifaaya la rek waaw diw maa ngi nii am dëj ñëw ca mais dëj kay waa dëkk bi yëpp cité bi yëpp mënuñ dem ca dëj ba hmm? quarante personnes rek fu ñu dajee tey jullit bu ñuy jullee benn nit yàlla mën na ko yërëm quarante personnes yoo xam ne jullit yu wér lañ dëj ba kay bu dee am na quarante personnes ñu sang ka sang ka jullee ko dem rob ko ñooñu waa dëkk bi lañ fa wutu waaye nga ne dee ñi nga xam ñëpp kenn ku ne dina ñëw ñëw boppam kooku itam jafe-jafe la wa nazalu lwaqia kulla xiini manzilata taami fi tabiini am na xam-xam yoo xam ne boom xam-xam yi sax dañ koo wàcc wàccuwaayu ñam wàccuwaayu ñam fi tabiini ci leeral ñam kañ a nga koy soxlo boo xiifee boo xiifee ngay soxlo ñam waaye sa frigo bu feesoon dell ak lu ñuy lekk ak ay fruits ak lu ñuy naan taxul nag 24 heures yëpp ngay lekk sinon da ngay daanu du dëgg mais bi nga xiifee ba mënatoo dem nga jàdd fenn barkeelu xewlu soog a delluwaat noonu la xam-xam yooyu mel xam-xam yooyu am na ci xam-xam yooyu du 24 heures sur vingt 24 nga koy soxlo mais dafay mel ni rek foo ko soxlaa rek dem jëfandikoo ko boo ko soxlawutim nga teg ko foofu loolu kon gis nga ni mu gënee xam-xam yi njëkk a jàng ndax yi njëkk jàng mooy ilmul xaal nga xam ne yooyu momentanément da nga koy soxla toujours muy jikko yu rafet yeeg yu mel noonu ak yoo xam ne nag manzilata taami la rek euh, mu ngi mel ni docteur bi nga xam ne jàng man médecine bu amul patient du liggéey hmm? mu ne euh, wa waqian fi l baadi ka dawaa yi mu ne mais am na ci xam-xam yi yoo xam ne moom médicament la maanaam moom ci boppam maanaam pathologie la maladie la ci boppam kan mooy fekk maladie nga koy xëcc ci jëmee sa bopp am na xam-xam yoo xam ne jàng ko mook euh, teg sa boppa feebar ñooyam kon vous êtes déconseillé pour nga jàng ko parce que daf lay gaañ ñu ne ah si xaj ma xam-xam dina gaañaati mu ne euh, ilma nujum yi comme ilmu nujum mësalu mira niral nañ ko bi daa yi ci jàngoro am na xam-xam yoo xam ne médicament la maanaam boo feebaree la bëgg a wax nga koy soxlo maanaam am na xam-xam yoo xam ne maqaamu lekk la ñu yore lekk xam nga di nga xëy ndékki añ reer kon xam-xam yooyu mën nga ko soxla xëy na n fois ci ci bés bi waaye am na xam-xam yoo xam ne mook médicament ñooyam yaa ngi amee sa benn paracétamol teg ko ci sa néeg boo ko soxlaa rek daraa la daraa mën nga toog ay weer ñaanoo yàlla sax dara métti la mën nga toog ay weer doo ko soxla loolu itam jàng loolu day dal nit gis mu ngi mel ni ki nga xam ne avocat la war a liggéey ci baro ba bu amul client dina liggéey hmm? mën na toog ay weer du am client ku mu woola ne kooku du jaa ñaan mukk jàmm boo gis moom mu ngi ñaan rek jafe-jafe yi di gën a yokku ndax mu mën a am liggéey <coughs> mais kooku bu amul liggéey wax dëgg yàlla kooku euh, day jafe-jafe ñooñu ñoo médicament ñooyam ak xam-xam yoo xam ne moom ci boppam sax mooy feebar bi moom kon xam-xam boo xam ne moom feebar la kooku kenn waru ko ñaan yàlla mu ne bi nga xam ne nag médicament la mooy lu mel ni ilmu nujum ilmu nujum xam-xam la boo xam ne yow mi ko jàng ba pare li nga ci mën a xamee rek mooy fan la penku bi ah? ak euh, jamono lii ak lii lii maanaam yooyu rek nga ciy soxla te yooyu boo ko xam xëy na mën na doon xam-xam boo xam ne ñetti yoon ci sa dunda lañ la koy laaj kaay wan ñu fan fan la penku bi toll. waaye moom ci biir xam-xam bi am na ci xam-xam boo xam ne jàngoro la te mooy dalay rey te mooy nga découvrir ci ilmu nujum ala ilmu bil xëy bi euh, naan bés sàngam bu jamono sàngam xewee nangam dina xew nangam dina xew nangam dina xew. yow xam-xam boo xam ne dañ la dañ araamal ci yow nga laaj ko kon yow léegi doog doog di ko informer xam nga gën naa yéeme hmm? te loolu dañ koy tere ci xam-xam ak bépp xam-xam boo xam ne ni maanaam masalan xam nu ñuy defaree sàngara ba mën koo defar bañ naan diw de ni mu mënee sàngara euh, moom dosage am ni mu mel ñu la wax la li ngay def baaxul nga ne non man du ma naan de man du ma naan mais dama koy defar rek ah boo ko defee ba pare fu ko nit ñi jëmee dañ koy naan moo tax di nga am bakkaaru képp ko naan euh, taallumu ilmi nujumi qul xaram wa fi ihtimaami ilmiha fawtul maram si xaj maali ne d'ailleurs sax pour wan la xanaa xamoo jàng ilmu nujum dafa xaram dafa xaram li ci dagan mooy rek nooy defaree waxtu nooy xamee waxtu ak yu mel noonu defe naa yooyu dépassé nañ ko léegi moom képp ku amee portable mu ngi man amee na ci logiciel bu mu mën a xamee ban waxtu la ñuy juleeg ak fu mu mën a nekk ci àdduna bi kon looloo ci daganoon waaye mën a xam di deviner lan moo war a xew gis nga tubaab yi niñ ko gëmee horoscope euh, journal di nga gis ku jënd journal lëmma horoscope la koy doye te loolu du dara du dara waaye am na ñu ko gëm ba jàpp ne loolu lu la wax du dañ euh, loolu xam-xam la boo xam ne ni feebar la qul neel xaram dafa aram est-ce que amul ñuy persister di ko jàng ba tey wa fi ihtimaami ilmiha di yittewoo sax xam-xam ba fawtul maraam maanaam euh, perte temps la maanaam ki jàng sax euh, astronomie ak astrologie ba maîtriser ko lool ba euh, xam ci lu baree bari xam yu mën a xew ak yu nangam yu nangam si xaj maay ne kook bu faatoo temps bi mu def ci xam-xam boobu yëpp lan la koy jariñ ci bàmmeelam dara ah moo fi raw génie la ci ci nangam moom mën na la wax fii deux cents ans luy xew ah? di projeté lu ne waa léegi yow loolu ak xoola xam-xamu ilmu nujum ni mu jafe sûrement bala nga ce am ay diplôme jàng nga plus de bac plus sept wala yu mel noonu loolu yëpp nga def ko nag dem bàmmeel te yóbbu woo fa dara loolu loo fay jariñ vraiment kooku non seulement jàngoro la waaye itam perte temps weesul lool ñu ne waaw lan moo tax mu aram pourtant xam-xam la comme yeneen xam-xam yi mu ne déedéet ki koy jàng toujours dafay bëgg a deviner liy war a xew waaye nee na même li xew li war a xew boo ko xamee après yow est ce que mën nga ko échapper hmm? mu ne indal huruba daw min qadaa illahi ci dogalu yàlla man daal gis naa ne sama biddiw fi ak vingt ans du opérationnel kon fi ak vingt ans du ma damay faatu waaw bi nga ko jàngee ba xam loolu après man mën naa tax nga échappé loolu moo tax mu ne innal huruba daw min qadaa illahi ci dogalu yàlla lay laysa bi mum mumkinin doonul lu jàppandi ajal maa ngi axa kay wallahi maa koy giñ ci yàlla moo tax maam Rawxaan Ngom radiallahu anhu wax nañ ne daan na wax ne man de xaw ma kashfu lu muy jariñ ndax yàlla wan la li war a xew te manoo ci dara nga koy gis ba muy agsi ci yow xaw ma ban njariñ moo ci ne hmm? ah wa wax dëgg xam nga li la sax daaneel la hmm? ki nga xam ne oto daf ko war a fiir mooy tax ba oto ne këy ci kaw moom sax yëgu ko bari sax la yeewoo yàlla mën na ko may garaatu it waaye yow mi xam ne dans cinquante ans di nga di nga di loolu dina la dal yow mbaa di nga dund dund gu normal da ngay toog di ko xalaat di ko xalaat ba ba muy agsi ci yow te mënoo ko changé moo tax mu daan wax ne man de xaw ma kës fu lu muy jariñ ndax gis li war a xew te mënoo ci dara ba mu dal sa kaw kooku wax dëgg yàlla euh, matu la ndamoo mais itam mooy ilmul nujum jàng ko ba mën a luy xew ak lu ne muy xew ak nangam nangam te yow mënoo ci changer dara ndax aqtaab yi ko am ñoom buñ leen koy may c'est juste pour ñoom ay xaritu yàlla lañ ñu may leen buntu ñu ñaan ak yu mel noonu euh, illa alladi yu'rafu minhu alqibla ma'a salaati ilmuhu fi lxilla léegi nag ilmu nujum bu mu tax nag astrologie wala astronomie nga ne araam na à tifa tifaaqan li gaa yi wax cent pour cent déedéet illa alladi lu dul xam-xam bi nga xam ne le minimum bi nga xam ne yu'rafu mën nañu xam minhul qibla fan la penku bi féete maanaam loolu ci xam-xamu nujum lañ koy xamee ak itam mën a xam ay yoon ndax bu njëkk ba mag ñi amuñu woon ay autoroute à péage amuñu woon ay voie amuñu woon ay VDN jamono yooyu buñ daan tukki ci dañuy bàyyi ba guddi ñuy xool biddiw yi ne biddiw sàngam béede dëkk sangam la tiim kon fii mooy yoon bi bu ko defee ñuy dox di orienté wu ci biddiw yi wa bi najmi hum yahtadun yàlla wax na ko ci alquran ndekete euh, ndekete biddiw yi nga gis nii mu nekk ci asamaan code de la route la mais yow yaa ko xamul bu fekkee lool nga ci bëgg a jàng mënees na la koo may mais bu boobaa itam dafa dagan rek waaye taxul ñu waral ko ci yow maa salaati ak nan la ñuy jullee maanaam maanaam waxtuy julli yi ilmuhu xam ka fil xillati dafa daggan mais du caaginu dafa war léegi nag bu fekkee dëkk bi yëpp maase nañ ci réere kaña la waxtu julli yi kooku nag jaadu nañu mandaté kenn pour par force mu dem jàngi ji ko ba mën a xam waxtu julli yi kaña la ak euh, ndax itam muxtaar yi ak darura yi dañ ko tënk ko ci jant bi du dëgg euh, wa yanbagi tilawatu alqurani wa dikri wa duaa fi l axyaani tadarruan wa xiifatan idhaara lilfaqri walfaqati wa inkisaara Euh, sëriñ bi di continuer waat yow mi jàng xam-xam yow mi bëgg yàlla wayen bari jaadu na foo tollu ci laawatul quraan yi ngay jàng alquran euh, suñu jamono rek ngay gis car ku dem ba am agrégation ci diplom bu ne wala ci département bu ne te amayata ak suuf sax mënu ko jàng loolu ñaaw na hmm? téere boo xam ne iqra moo ci njëkk wàcc yow nga dem ba doon fa tabarakallahu ingénieur plein hmm? doon tabarakallahu benn géologue plein wala nga mankat man cadre la ci bâtiment man cadre la ci comptabilité man cadre la ci lu lu ne nga ne cadre nga ci wala jeune yi nga ci mais ku la joxoon benn jukki alquran mënoo ko jàng dëgg-dëgg xamoo dara waaye ba kon jaadu na tilaawatu quran boo nekkee xale demal nga jàngi alquran bu la échappé xëy na leneen nga doon jàng ba màgg utile ku la jàngal alquran léegi nit mën naa jàng à distance sax ba maîtriser yu bari waxuñu la nga mokkal alquran mais nga mën koo liir bokk boo ne mënuma liir euh, arab forcé ñu la waaye utal bokk Coran traduit en français et transcrire en français nga di ko jàng ndax moo moo tane nen de même que ci anglais waaye bàyyi alquran te journal bu la romb nga liir ko revue bu ne nga liir ko dëgg-dëgg ñaaw na wa dikru na ngay faral di tudd yàlla foo toll nit dafay tudd yàlla information du la raw euh, ngénte du la raw dëj du la raw euh, euh, université bu ne nga fréquenté ko lu ne nga jàng ko waaye toogal def junni laa ilaha illallah nga ne aw ma jotam dëgg-dëgg rafetul wa duaa o ak di ñaan fil axyaani ci jamono yi soxla boo am li nga nara a toog di ko jàmbat waaw jamono yi dafa dëgër léegi man situation yi réew mi xaw ma nu mu toll loolu nga naroon a jàmbat Seydi Haj Maalik nee na toogal nga ñaan ko adduwaa silaaxul mumin bari na lu la jafe boo ñaanee yàlla de ko dékante ko waaye yooyu yëpp boo ciy def nag muy jàng alquran ji muy zikr bi muy ñaan gi te darru an na nga ko def ngir toroxlu de waaye bul wane ne non si si man damay jàng ah man damay jàng Coran bi non non na nga ko def tadarru an toroxlu wa xiifatan ak ragal yàlla izhaara ngir feeñal lil faqri ci aajowoo bi nga aajowoo yàlla wal faaqati ak ñàkk gi nga ñàkk nga xam ne soxla woo ku dul yàlla wan kisaara ak dammatoo maanaam na nga ko def daal avec modestie rek la bëgg a jàngale wa sadaqaatu del faral di saraxe julit dafay saraxe waaye koo xam ne boo saraxee rek sëriñu maaman bi moo ne la génnal ganaar gu weex ak gu xonq nga jël ñetti guro wërale ko sa bopp ak ay feuilles marabu nga joxe ko waaw loolu lan la <laughs> man am na ku ma jox ay sondel na ma sondeel yi sarax ma ne waa man sondel fan lañ ko taalati hmm? fan yooyu façon sarax wax dëgg yàlla kenn xamul la la xëy na ganaar gi sax tane na waa ji mën na koo supp lekk ko waaye ay sondel ay cola blanc kola rouge ak eh, ay ay papier ne yi boo ko saraxee mais yooyu kenn xamul la ak saraxel xorom baax na nag baax na waaye wax dëgg yàlla yooyu am na lu ko gën te mooy jël alal def ko ci enveloppe jox ko ku ko soxla te yàlla tax jël saaku ceeb dem ci ko xam ne yomb ko nga jox ko ko jël saaku dugub nga jox ko ko fekk koo xam ne tëj nañ ko te bor bu mu waroon a fay la amul moo tax nga man ko nga fayal ko ko loolu la Seydi Hajj Maalik ne wa sadaqaatu sarax daafiaatu dafay jiñ day puus al bala lil bala ci bala bari na lu dal nit diw de dafa accidenté diw de AVC la def léegi diw de ah ñu ngi koy évacuer léegi yooyu balaa yooyu dara juru ko lu dul ñàkk lu ñuy ñàkk sarxe muxlisaha waaye nag na nga ko sellal li waj yi ngir jëmm waahibil ilaa yàlla mi may xéwal gi loo ciy def rek na ko def te yàlla tax waaye jël benn bëy rendi ko tabaarakallaa fees jël sàmbune eh, jat kaa jata jata jat lu ne nga jot ko ci def ci kenn def jox kenn xam nga loolu boo waxee mu ne noono euh, waa ji nee na ma poste tel bu ma ci bëggee jot faw ma def loolu yow est ce que li nga fi yàlla tax hmm? finalement ñàkk nga la nga joxe te doo jor doo yor itam li nga bëgg wa hakaza sualu rabbil aafiya naka noonu itam yow na ngay ñaan yàlla euh, jàmm jàmm baax na de jàmm moo gën ci àdduna moo gën ci àllaaxira ku am jàmm ci àdduna jubóog yàlla jubóog say bokk ku am jàmm ci àllaaxira dem àjjana wala afwa ak njëggal fi daaray ni xayral waafiya ak eh, njëggal ci àdduna ak àllaaxira bu mat ci bi sallallahu alayhi wa baayam abbas ibnu abdul muttalib moo ko laajoon ne ko lal lal nga may digal ma koy ñaan mu ne ko del ñaan aafiya jàmm mu demaat ab diir mu ñëwaat ne ko ba xam naa dafa gàtt ci moom dooma jox ñaan gu may faral di ñaan mu ne del ñaan aafiya ba mu ko ñetteelee nag mu ne ko abbas ba da nga ko xep maa ngi lay yëgal ne àdduna ak lu fi gën ñaar amul muy al afu wal afiya njéggaluk yàlla ak jàmm mu ne bu la yàlla jéggalee ngeen juboo bu maye mayee jàmm ci àdduna nga nekk ci jàmm àllaaxira bu la jéggalee say bàkkaar dem boo boo boo amee jàmm mooy dugg nga àjjana te mooy tolloog rabbana atina fi dunya xasana wa fil axira xasana looloo tax mu naan salullaha al afwa wal aafiya dee leen ñaan yàlla jàmm ak mucc moo tax mag ñi daan wax yàlla yàlla may ñu mucc ak muccale ak njéggal loolu moom mooy jëmmi ñaan sëriñ bi nag ne man rusika du'a boroom xam-xam yee wax képp ku yàlla wërsëgal ñaan laysa yuxramu duñ la xañ ijaabatan nangu wa thaabiruhu na ngeen ci sax tukramu euh, yàlla teral leen gis nga bari na soxla boo am di ko diingat di ko jàmbat bis bu la yàlla xiiree ci ñaan yàlla rek soxla bi dafa nara a faju maanaam lan laa bëgg wax léeg nga bëgg dara xataa oto bi nga bëgg sax naan waaye man daal war vraiment war naa am oto war naa am oto te bis bu yàlla xiiree ci nga jàpp ba sella bàyyi ba guddi nga julli ñaari rakk def benn dog ne yàlla maa ngi lay ñaan nangam égal loolu a soixante-dix pour cent loolu moo lay may oto bi nag waaye fekk yaa koy jàmbat yàlla mu fas yéenewul nga jot ci waaye bis bu la xiiree ci ñaan ci rek mooy nar nga ko am ndax yàlla nee na du ma neenal euh, maanaam jaam bu tàllal ay loxom ja euh, bi gis nga loxom yi ni mu tuutee yàlla nee na du neenal jaam bi tàllal ko ak ni ma barilee ma koy delloo ak neen ko xamoon tey kar milliardaire bu bari alal lool lool nga amoon soxla juróom fukk dem wax ko ko tàllal ko ko mu delloo la est-ce que loolu moom grandeur dina ko nangu hmm? yàlla nag moom mooy moom rek a am lu fi waaye am moom moo la ko jox kon moom ëpp na nee na jàmm bi tàllal ko loxo mu delloo ko avec zéro kon laasi saabiruhu taxoo leen leen ñaan tukramu ñu teral leen sëriñ bi nee na amma amma al in kaana fi taqdiri yusibuhu lakin maa taysiri yarzuquhu rrahmanu lidduaai sabran jamilan duna ma xafaa'i wa innahu xazinatu taati fii xazaini illahi bila xulfin wa fi miftaaxuha adducaau wal asnaanu walxalaalu lbaxtu yaa ixwaanu mu ne amal bala balaa nag in kaana ndem nekk na fi taqdiri buñ ko doon nattale yusibuhu nga xam ne da koy maanaam ci ci dogalu yàlla ne daf ko war a dogal lakin ma tey siri maanaam li mu bëgg a jàngale mooy lan di nga waa ji yow wax nga ci gannaaw ne jàng ilmu nujum dañ koo tere ndax même bu la découvrir bu la feeree découvrir li la war a dal dans trente ans yow mënoo ci dara ba pare nga ne nañ ñaan te ñaan mooy ñaan li nga bëgg mu ne waaw ñaan doo perte benn yoon gis nga même destin bu waree ñëw ane sàngam nangam di dal diw de dafa nar a ñàkk diw de narul am xam-xam diw de loolu bu dee mooy destin bi léegi nag boo ñaanee yàlla contraire bi bu dee loolu mënul ñàkk am destin bi mais ñaan gi dina tax dina ko woyafal du dëgg maanaam masalan koo xam ne ni yàlla dafa war a bind ne day gàtt fan trente daal lay dund moom muy ñaan yàlla cent xam nga ñaari yi bokkul waaye bu ñaan nga nangoo trente ans ya mën nañ ko xëcc ba mu dem ba soixante ans wala soixante dix an waaye cent ans yi mu ñaan moom du nangu du nangu parce que destin bi mooy lii est ce que ñaan gi amul njariñ kon yàlla bu bindee nit ne ci ñàkk lay dee moom mu ñaan ay milliards te moom warul am sax cent mille gis nga ñaan gi bu ñëwee effectivement mën na changer carte yi waxin la nag loolu daal la bëgg wax ne amal bala wàcc maanaam diw itam dina accidenté moom mu ñaan yàlla yàlla na yàlla musal ko ci balaa yeeg nangam nangam effectivement accident boobu mën na jur yàlla mën na ko oyofal ba bu ko oto bi mbëkk itam daf koy felesu rek mu daanu nale Euh, deret ji nàcc tuuti waa ji am réer gu toll ni jug naan ah boo ma rayoon looy wax te xamul ne moom dessin bi mooy dañ ko waroon rey muy xuloog borom oto ba nankaan ah nii ngeen def rek boo ma rayoon te xamul ne moom dañ ko waroon a rey effectivement mais gis nga ñaan gi mu ñaan wala saraxe bi dana wàññi balaa boobu moo tax mu ne amal bala in kaan ndem nekk na fi taqdiri ci dogalu yàlla ne yusibu war na ko dal laakin na waaye ñaan gi mën na ma at taysiri da koy yombal yarzuquhu rahmaanu yàlla dina ko wërsëgal li duaa yi ci ñaan sabran jamilan muñ gu rafet duuna ma xafaa yi muy beneen nukta itam ci lu dul werante bu fekkee nag destin bi moom par force loolu faw mu dal moom ñàkk gi moom mënul ñàkk ndax yàllaa ko dogale noonu wala euh, réer gi moom mënul ñàkk wala gàtt fan gi mënul ñàkk maanaam balaa ba moom mënul ñàkk wàcc wala feebar la boo xam ne ni faw mu ñëw ci yow dara du ci changé nee na ci barke ñaan gi mën na la roof ak muñ ba doo ko yëg muñ googu moo tollook li ñuy tuddee anesthésie xam nga ki nga xam ne dañ ko war a defal opération chirurgicale nam nekke buñ ko bàyyi woon noonu de yi dina yegg du yegg te dina metti waaye gis nga bu ñu piqûre kooku rek anesthésier ko dinañ def li ñuy def yëpp te moom du ko yëg hakaza ñaan noonu lay def maanaam balaa bari na koo yërëm te moom yërëmul boppam parce que yàlla rof na ci xolam muñ goo xam ne yow yaa ngi koy jërëm ci ñàkk ca moom jàpp na ne mu ngi àjjana loolu njariñal ñaan la mën na loolu euh, wa innahu xazinatu taati fi xazaini llahi bila xulfin wa fii d'ailleurs ñaan sax Seydi Hajj ma nee na mooy trésor trésoru jaamu yàlla yépp ku ne xam ne trésor public mooy dundal réew mu mu a nekk mais trésoru jaamu yàlla yépp bi leen alimenté mooy ñaan ah kay neex naa gëm ban jaamu yàlla moo amul ñaan gis nga aj màkk yëpp rabbana euh, nangam nangam rek ngay wax julli gi daanaka ñaan la zikr yi soo paree da ngay ñaan boo woore booy dog allahuma laka sum booy dugg ci douche wala nga ciy génne allahuma maanaam looy def rek allahuma ngay wax kon moom mooy trésoru moom moom ñaan mooy alimenté mboolem jaamu yàlla yi euh, bila xulfin wa fii miftaax waa mais ñaan nag clé la Seydi Hajj Maay nee na clé la caabi la mais caabi dafa war a am ay bëñ ndax ci bëñ yooyu muy jël dent wooyu dent yooyu di nekk ci clé bi mooy jur boo ubbee mu ubbi waaye jëmmu jëmmu jëmmu caabi kese tijjiwul dara mu ne muftaaxuha caabeem nag maanaam jaamu yàlla yëpp la bëgg a wax ne clé la jaamu yàlla yëpp muy jullee koor euh, euh, clé bi leen di muy seen trésor mooy ñaan mais ñaan dafa am ay ay dents mu ne wal asnaanu bëñ yi nag huwal xalaalu ay aklul xalaali mooy lekk lu lew albaxsu maanaam huwal baxsu fii aklil xalaal yaa ixwaanu yow mbokk yéen mbokk julli dinaa lekk lu ma neex te lu ma ñaan mu nangu déedéet gis nga moo tax mag ñi daan yalwaan ndong daara yi wala yeneen sëriñ daara yi di yalwaan euh, ndax nit lekkul lu gën a lew yalwaan wala dëgg ndax même généralement kii yalwaan ñi dul dunde lu lew sax duñ koy sarax hmm? dem dëkk ci waa ji dem ci dëkk ci château bu kawe kooku fa muy añe table à di ko gis bay bay mën a euh, euh, kii ci moom waaye ñi togg ceeb ak ñi togg fondeek ñi togg sombeek yooyu ngay dajale nga xam ñoom sax amuñu lu doy lañu lekk ba desal ko yow lañ lay jox xoolal dèjà la la des mooy la kenn soxlawul loolu mu gën a lew ci li nit di lekk léegi njaxas yooyu nag la ñuy dajale lekk ci lu jot seen bakkan kooku bu julee ñaari rakk bu la ñaanale ajo bi ni mu toll day faj waaye waa ji dëkkee lekk mis wi fu mu toll di géex xam nga ne mis wi yëpp mënul daga nag ah ni jamono ji métte nga dëkkee lekk mis wi rek kaar fur wi wër la fu ne boisson yi bu ne nga laal pare nag neen ñaar rakk yi may def bu ma dooree dara du ñëw dara du ñëw looloo tax ñi noonu sax yeewu nañ ñu ci bari dañuy demaat ci ñu modeste pour ñu defal leen ñaan ndekete ñaan jafewul ñaan gu nangu jafewul mais condition yi muy nangoo moo jafe te mooy lekk lu lew lekk lu lew nag toog di ko wax léegi ci jamono ji maanaam daanaka wér di lañ lay jàppe sax yow waaye daal xam naa ne yalwaan moom métier la moo xam ne donte laaj dañ koo tere waaye mag ñi daan lu ñu war a ñam wu waroon a tuuri xam nga taalibe bi li muy def ñam wuñu waroon tuuri moom mu dem récupérer ko loolu laaj la du laaj ndax boo ko joxul woon yaa ngi ko jege jële ci poubelle bi te loolu lañ tere mooy lu euh, moo tax nitu yàlla yi nga daan gis ñuy lekke ci poubelle yi yow boo leen gisee da nga leen di seexlu yow mi añ ba suur dem yóbbu ca poubelle ba moom fa lay fekk loolu lekk ci ba suur dem ci rivière ba naan ndox kooku dinañ wax ne lekkul lu dagat hmm? kooku lu mu ñaan yàlla nangu ko nga tuddee ka nag ab dof fekk na cërëm kenn xamul mu toll wa ilmu tibbin sëriñ bi nag di continuer waat ci xam-xam yi nga war a jàng nga xam ne fardu kifaaya la mu ne wa ilmu tibbin xam-xamu médecine nag jaizun dagan na euh, taallumu wala boog taallumu jàng ka jaizun dagan na ka saairil asbaab yi mook métier yëpp nag am man yaalamu ci ku ko mën a jàng maanaam maçonnerie dagan na nga dem jàngi ji ko waxul war de dafa dagan euh, de même que bijouterie dagan na nga dem jàngi ji ko couture dagan na nga dem jàngi ji ko broderie dagan na nga dem jàngi ji ko électricité dagan na nga dem jàngi ji ko décoration dagan na nga dem jàngi ji ko euh, professionnalisme euh, ci wàllu wàllu état maanaam jàng diplomatie dagan na nga dem jàngi ji et cetera maanaam bépp bépp bépp métier boo mën a exercer à long terme pour gagner ta vie dagan na maanaam waxul war na dafa dagan mais surtout sëriñ bi wax ci lu am solo ne am man yaalamu ci ku ko mën a xam ndax koo xam ne ni jàngul mënul liir turam wax dëgg yàlla bu ne mathématique la bëgg a def pour doon ci ingénieur xam nga kooku farceur la kon yow da ngay xool ban xam-xam moo la jubu wala ban métier moo la jubu moo tax ñu wax ne nit boo bëggee mu tekki da nga koy laaj ban métier nga bëgg yow maanaam moom bi mu bëgg bu ko choisir rek pour avancer ci dafay yomb waaye boo ko imposé yow ci bi nga nekk ba réussir ci c'est pas pour rien réussir nga ci rek sa doom boobu dina ci mën a réussir déedéet wa ja laaj ko moom ban la bëgg bu ko defee mu man ko jariñoo waaye médecine moom dagan na dagan na ci kaña kaña la dagan mooy bu amee une partie bu koy jàng nga xam ne départ région boo dem wala université boo dem di nga fa gis département médecine ak pharmacie euh, boobaa yow boo amee choix bi jàng ko dagan waaye réew mi yëpp bu ñu marché woon nag ci bañ koo jàng léegi bu boobaa lan lay doon bakkaar lay doon kon fardu kifaaya lay doon ci chacun bu boobaa mu dem jàngi ji waaye bu xësee am nag ñu ko jàng tabaarakallah ti fi naa lool fa lañ toll ndax ñi def médecine te kenn euh, inséré gu leen ci fonction publique du jeex man gis naa ci koo xam ne jàng na ba am ay diplôme quatre-vingt-deux xaw trois la jot diplôme ba tey mu ngi dund yëguma fu mu fi amee liggéey ba mu jégi day jaay yu ñuy lekk moom loolu la mujjee xam nga kon kooku encombré waat système ba doonatul farata boo xamee ne mën ngaa am leneen feneen doonatul farata euh, waqat tadaawa parce que faju na Moustapha al Aminu yonent yàlla Muhammad maanaam faju kon mën nañ ko jàng te tekkiwul dafa am benn xadis bu muy wax lii xadis bi yàlla dafay récompenser ëllëg yowmal qiyaamati ñi nga xam ne du ñu faju dañoo wéeru ci yàlla ba buñu feebaree sax duñu faju dañuy delloo rek seen yàlla seen bopp te moom la sayidna abubakar siddiq waxoon dafa feebar ñu nekk que xalaata daawayta ndax doo faju mu ne mu ne am naa docteur xala taxata tabiba ndax doo ut mu ne am naa ko mu ne mu ne xanaa consulté la mu ne waaw consulté ne ma mu nekk lu mu lu mu la wax mu ne yafalu maa sha nee na lu ko neex lay def ci xam ne yàlla lay wax keneen ki ñu ne ndax doo faju ji mu ne tabibu amradani docteur bi ci boppam moo feebarloo xam nga nag docteur bu la joxee feebar maladie kay ngay wér loolu maqaam la ci tawakul ba nga xam ne ñoom duñu sonn ji makam boobu nag maa ngi ñaan ñu bari yàlla na yàlla yeggal leen ci parce que li nit ñi daj ci ay bu ñu amoon maqaam boobu defe naa dana wàññiku nag moo tax waaye bu tax nag nga ne doo faju ji ndax yonent yàlla Muhammad mas naa faju daan na faju waaye nag itam déggal lool yem ci ndax yonent moo daan fajaate moom lu ko masaana metti day teg loxoom foofu jàng faatiha falaqi naasi bu ko fa ëffee mu sedd dépassé na loolu sax waaye moom loxoom rek ku mu ko laal nga ndax loxo bi euh, euh, ki ki man te loolu sëriñ bi way na ko ci anam euh, anam yu bari ci abada bu roog nuunu yaag ndax haaji yooyu yëpp way ko fa ala innama yumnaahu sayfun wa rahmatun moo tax mu ne waqad tadaawa faju na al mustafa al aminu sallallahu alayhi rabbuna al kon bul gis mukk kuy faju nga koy yedd ki fajowul itam maqaamam la bayit bii la Mawlana Cheikh Hadj Abbas waxoon ne Sidi Hadj Malick docteur bi ko maanaam dafa yaram bi dafa jagadi woon ñu ne ko tee ñu laa ool docteur bi ah bi ñu forcé mu docteur bi ñëw xool bët xoolal ko yaram bi ba pare Euh, am wax ka yi mu gis a gis a gis wax a wax ba dem naka la dem nag Seydi Hajj Maalik di way bayit bi te mooy bii nii inna al munazzila na daa huwa al munazzilu lana shifaa mu ne inna al munazzila kii wàcc alayna daa jàngoro ci ñun kan mooy wàcc jàngoro ci jàmm bi yàlla bala nga koo xam am na feebar contagieuse yi nga xam ne dañuy wax ne pour mu bañ la dal da def protection ci lii ci lii ba ci passé woon bu yàggul waaye da ngay gis ne ñamu gën a sonal mooy ñi am mooy def loolu moo tax benn waay biñ ko xoolee testé ne ko feebar bi daf la dal dane noonu mënul nekk ndax yéen yi ngeen wax yëpp ne ku ko def du la dal man lool ci laa dëkk man gis naa nuyu nit ñu ne ka feebar bee la dal de mu mer ne yéen daal xamu leen dara fekk na xamuñu ne jàngoro yàllaa koy teg yii sabab rek la waaye kii teg jàngoro yi moom mooy li ki li Seydi Hajj Mari wax innal munazila kii wàcc alay na daa su jàngoro ci ñun wal munazilu mooy wàcc lanaa ci ñun shifa a saafara defe naa gëm nañ ko ci année yi nag hmm? feebar bu xëy rek mat adduna bi kàpp ñuy xool les voies et moyens mu toog ba mu nekk disparaître ah kenn xamul lu ko fi indi mais kenn xamul lu ko yóbbu ah leçon bi moom léegi mokk na xanaa hmm? ndax boo ne faw ñu ñu ñu vacciner la pour loolu am adduna bi ku ne xam ne un tiers bi sax vacciné wu ñu ah euh, un dixième bi sax vacciné wu ñu te feebar feebar na nga xam ne yàlla mooy def lu ko neex wa jaasa dagan na nag al istishfaa u nga jéem a faju bil qur'aan ci alqur'aan loolu dagan na maanaam dara metti la nga bind alqur'aan ci benn alwa raxas ko naan ndox ma wala nga sangoo ko loolu dagan wala nga jàng alquran ji ci boppam ëf ko ci ndox euh, naan ko wala nga sangoo ko wala nga teg sa loxo foofu noonu jàng fa alquran comme li ma wax léegi yonent bi daan na jàng faraxi naasi ëf ko fa yëpp dagan na euh, wa bil kalaamil bayini ak ay ay ay euh, ñaan yoo xam ne ni yu wér la almaani ci maana li ñuy bañ mooy nga indi jat yoo xam ne jat yi kenn xamul lu muy firi wala ay waxi jinne daf cee nekk wala seytaane laa bëgg a wax waxi seytaane yoo xam ne shirk mën naa ne ci biir te doo ko xam waaye lu mel ni salaali muhammad waalaali muhammad xam nga loolu euh, salli ala muhammad lay firi ak yu mel noonu bu fekkee daal jat la yoo xam ne yu wér la euh, yàlla yàlla nag ma faj ci lii bu dee même donte ci olof la waaye xam nga li muy wax yàlla yàlla nag faj ci lii maa ngi nii am naa feebar boo xam ne wax a wax a daal ba mu niroog jat waaye shirku nekku ci loolu mënees na ko fajoo wa gayru zalika min al kalaami ak yeneen sax yu dul yooyu yoo xam ne ni manaahul baadu euh, tere na ko lenn li bilaa malaami ci lu yeddaangi yooyu dañ koy euh, tere maanaam euh, ci ay jat ak wax yi yoo xam ne ni xamoo lu muy firi dañuy bañ maanaam lu lu shirk dugg ci wa qaala baaduhum ida takarrara nafcun bihi yajuusu is jaa xabara man istataa minkum an yanfaca axaahu falyanfacu xaytu waqaca yonent yàlla Muhammad benn waaye dafa ñëwoon ci moom manoon ay jat maanaam yoo xam ne daal boo ko jatee ba àggal ëf ko ci fenn euh, kook bu ko jëfandikoo mën naa wér yonent bi tontu ko ne que man istata an yanfa axi fal yanfa mu laaj ko ndax dagan na wala daganul yonent bi ne ko yàlla daal dafa waral képp ku mën a rendre euh, service sa mbokkum julit daal utile na nga ko def gis nga jullit loo ko defal rek ci njariñ yiw lay doon ci yow kon ku xam ay jat wala ay aaya wala ay ay xadis maanaam manam ay ay ay ñaan yoo xam ne wala ay ay ay ay reen wala ay sunguf wala ay garab yoo xam ne boo ko joxee sa mbokkum jullit daal mu wér ci te man ko koo jariñe yonent bi nee na ak nu mën a mel bu amul bu amul sirk rek defal kon tradipraticiens yi foofu lañ dugg bu ñu amul benn ambiguïté daal ci li ñuy def jaadu na koo xam ne daal mën nga ko faj nga faj ko te yàlla tax ndax jariñ julit kenn xamul yow yiw bi ci ne moo tax wa qaala baaduhum lenn ci borom xam-xam yi nee na ida takarrara ndem dafa répété wu nafun bihi njariñ li mooy yow mi xam ay xam-xamu ren wala garab wala mel noonu nga xam ne yow maanaam faj nga koy ay nit ba tàyyi yajuusu dagan na irja xabara loolu ci xadis andi na ko te xabar bi mooy man istataa minkumu képp ku man an yanfaa ci jariñ axaahu mbokkam fal yanfaahu na nga ko jariñ xaysu wasaa wasia fu mu la jàppandee rek Euh, kon képp ku ne sunna ngay jaay tax nga ne yooyu dafa aram euh, faju reen ak kii te xamoo ne garab yi ngay jëli pharmacie lu mu doonoon ay reen la ak sunguf ay ay xob kon jarul la teengal nag moom daal ku mën a jariñ nit daal ak mooy bu mu ko defee bu dul ak sirk rek bàyyi ko ku xam xasida goo xam ne bu ko jàngalee nit ëf ko ci ndox bu ko naanee wir bàyyi bu jàngal ko waaye naan non ñun alxuraan lañ xam waaw yow pharmacie alxuraan new fa ah moo tax ku mën a jariñ sa mbokk rek jariñ ko moo tax tarbiyewu dara baax donte benn tur yàlla la laa ilaha illallah nga di ko tarbiyewu ba am ijaaba ba nit ku feebar sax boo ko tuddalee laa ilaha illallah ko ci yàlla faj ko waaye lu ne nga werd ka toogoo ci dara ba am ci ijaaba loolu itam jafe-jafe la qaala al imaamu shaafiiyu murtada muhammadun salilu idris arrida alilmu ilmaani fa lil adyaani alfiqhu waltibbu fa lil abdaani wa bulghatu lmajlisi maa wara ada aadana allahu min min alkulli ada sëriñ bi nag di jeexal fasl bu ñaareel bi ne qaala alimaamu shafii almurtada imaamu shafii ngirum ilimaanu ngirum mazhab la nga xam ne Mouhamed ibnu Idris la tudd sëriñ bi ne Mouhamed Salilu Idris ar-Rida muy doomu Idris moom moo al ilmu ilmaani xam-xam ñaari xam-xam la de sciences parallèle moo fi nekk falil adiyaan yi dafa am xam-xam boo xam ne ilmul adiyaan lañ koy wax mooy xam-xamu religion yi la science des religi euh, des des religions moom la ñuy tuddee ki ka xam un religieux érudit religieux mooy al fiqhu fiqh mu ne bu ñaareel bi mooy wa tibbu euh, science des cités wala science sociale falil abdaani loolu yaram yi ñoo ko moom man nga ci dugal médecine waaye di nga ci dugal lépp loo xam ne ni dafa dellu ci métier yi ak tout ce qui professionnel ndax bu maçon amul woon fan la nit ñi dëkk d'ailleurs jàkk sax duñ ko tabax bu menuisier amul woon doo am euh, chaise boo toog ak nangam et cetera kon yow bul ne ab sëriñ laa jàng ba am xam-xam kii tax ku ñëw nga xeeb ko déedéet ndax yow euh, yow mi taxaw ci minbar bi di xutba fauteuil ba nga toog di xutba ak yat bi nga téye ku ko defar kon menuisier bi bu ko xeeb moo tax xam-xam ñaar rek la imam Shafii moo ko wax mooy xam-xamu religion yi ak xam-xamu beneen bi euh, fiqh ngay jàng wala tibb wala professionnalisme léegi sax yàlla dogal na adduna bi dox na ba mënees naa jàng ñaar yëpp di nga gis koo xam ne nii euh, religieux la mais mën naa dem a dem ba di exercer beneen niveau bu gën a professionnel doon agriculteur wala yu mel noonu comme ni ko moom Cheikh Hadj Malick nekke woon nga xam ne moo jiite woon tool ba ca Jaksaaw waaye itam mooy jiite dars bi ci daara ji noor bi yëpp mu jàngale ko nawet bi yëpp mu euh, exercer ko mbayam léegi nag xam-xam gannaaw bi nga jàngee seen jënkal na la fardu kifaaya maanaam jàng sa diine muy ilmul xaal mooy dars bu njëkk bi loolu dafa war à tout amoo excuse ki war ko mën a jàng jàng ba mën a lii rek mënoo liir ni ngay julee moom dala war ni ngay jàppee dala war kenn ku ne yaa ko war a xamal sa bopp beneen bi mooy ilmul eh, eh, eh, fardul kifaaya mooy yi nga xam ne ko ñi xamee ci cité bi rek mu wàcc ci ña ca des sëriñ bi yaatal na ko nag lool léegi nag au delà ñaari savoir yooyu amaat na beneen xam-xam bu ñuy tuddee bulxatul masjid majlis yi mooy ki jàng yi mu war a jàng yépp nag maanaam enseignement ya muy découvrir aat yoo xam ne sax xëy na passe-temps rek lay tudda mais xam ko man na ko jariñ dara lu mel ni jàng géographie euh, jàng littérature jàng maanaam lu mel ni euh, euh, maanaam géo vocabulaire jàng yu mel noonu orthographe yooyu lañ tudde bulxatul masjid moo tax majlisi moo tax mu ne wa bul bulxatul majlisi maanaam yóbbalu toogaay maa war a aza mooy au delà xam-xam yi kii nag ki war a am jotam mooy kii jàng ba jeexal yi mu waroon a jàng ci farata yi aadana allahu yàlla na yàlla musal ñu nag min kullil aza ci bépp lor te mooy jàng loo xam ne dalay lor nit daal fek mu ngi dund ak lu mu mën a xam weesotul jàng mu ngi mel ni nit ku liggéey ba am alal ju bari ne daal am naa alal tëdd déedéet comme am nga possibilité mën a am alal léegi liggéeyalal sa bopp waaye liggéeyalal sa réew di dimbali nit ñi de même que ki jàng ba maîtriser yi mu waroon jàng yëpp te dese na meneen xel mu mën a jàngat domaine bu ne na gëstu pour xam fa dara loolu dina ko jural culture général loolu lañu ñu Seydi Hadj Malick di incité yàlla ñu ko yàlla fayal hada huwa tawfiq min indillah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu